juste dama wàcc di dox même pas quinze secondes rek siggi yem ci benn taxi bu doon romb bi taxi bi rombee la ndaw si di njëkkanteeg oto bi rek ci lañ déggee teel ñun sax dañ yaakaar ne scooter la mais bi ma tëbee maa njëkk a ñëw ci kii bi accident bi ma seen muy jigéen ak doomam bu war a am ay un an waa ji chauffeur bi wàcc mën na def nga dafa doon dem sax chauffeur da doon daw sax xamuñu fu mu jëm parce que lu ko bett mën ko ci la ko téye ne ko santal yalla ndaw see ngi dund non lañ jëlé def les premiers soins yi war taxaw ko ba sappoor ñew dama fekk mu tëdd kenn nawu fi. man ñëwee kan nga fekk mu tëdd góor la jigen la wala. jigen la mi ngi and ak domam domam bu ndawa dom bi so day xol est-ce que amul ay 1 an la wara am man man ko fekk mu tëdd deret bee ngi touru nit ñi wër ko après la freiner sama scooter pour xol qu'est-ce qui se passe mais bi ma ñëwee fekk naa ko muy noyyi quoi. moo euh, doom ji ak yaay ji yëpp ñu àndoon nañ ak seen bakken ba nga ñëwee. waaw doom ji ak yaay ji yëpp fekkee naa ñu ñu ànd ak seen bakken doom ji moo daa sonn noonu rek mais am na ay euh, ay xoos-xoos yu ndaw rek. Hmm. fu mu nii euh, xamuñu moom sénégalaise la wala ay mbokkam jotuñu ko identifier. guinéen la yor na pochette mais pochette bi amul amul carte d'identité amul portable amul dara guinéen la quoi. doom bi mu yoon mu yoon jooy quoi léegi yaaye bi moo mënutul wax. mais muy ngi yëngal bopp bi ak tànk bi quoi. ñi ñëw fii lépp kenn xam ko quoi waaw mais pour le Fouta la na. dañuy gis ku traverse am jigéen doo xam du xam fan lay jëm tere nañ leen ko bu sonnee télé yi ñu ngi waax rajo yi ñu ngi waax man su ma gisee koy def sax damay tiit man mii góor man duma ma nii te yéeguma ci passerelle yi kon euh, population bi nañ bàyyi di traverser tali bi tali bi wóorul. di wax nit ñi la ñuy bàyyi xel bu baax a baax ci muy man di sama morom ci jéggi tali autoroute parce que auto mëno munoo ak mom auto mëno def sa kët lay kàttan lepp nak dogalu yalla suñu borom la wala yalla na yalla bay sa tol parce que ndaw ci tay liko dal ni tay moko tek bopam ndax ngay njëkkanteeg ak auto bo xamni mo ngi daw looloog loolu xam nga bu la féké day jël sa bakan ñi ñaan yalla tamit autorité yi nañu xol autoroute bi tek fi ño xamni dañuy sécuriser fii parce que passerelle yu doyul passerelle yu doyul lañ ko wax passerelle yu doyul nañ ñu wutal ay passerelle doy.